la ngeen gisul ku taxaw ne yàlla su fayee baayam moom mu xeex ak yàlla ndax gisuleen loolu ndax da ngeen gisul ku taxaw ne sëriñam mooy dëgg te allahu huwa alxaq ndax da ngeen gisul loolu maa ngi leen di rappeler ndax da ngeen gisul ku toog tiim sëriñam na ko yaay yàlla sëriñ bi di dëgëral bopp bi waaw te waxul déedéet weddiwu ko sariya rey leen ndax da ngeen gisul loolu maa ngi leen di laaj ndax da ngeen gisul ku toog ñaari yonentu yàlla mun a def neen bàkkaar te ñoom yàlla leen musal ci bàkkaar ndax da ngeen gisul loolu wala ñàkk bàjjan Cheikh Ahmed Cissé moom ngeen gis moom mi joxe proposition ngir nit ñi mucc ci wér-gu-yaram moom mi joxe waree fu imaam li yonentu jàngale moom mi joxe valeuru jumaa moom moo ñàkk bàjjan ci réew mi c'est parce que da ngeen gëm ne gambien la Macky Sall bu moomoon réew mi du ko jaay te teewum te képp ku ma bokkalul ci réew mi gan nga wala terrain bi la wàcce wala guddi nga fi ñëw mooy man man maay Sénégal the definition of Senegambia mooy man waa suma bos ngeen gis moo jar porter plainte yeneen yi moom jaru ko parce que sant wi rëy na parce que mbooloo am na parce que doomi diw la xeex dëgg ak xeex nit du benn bu fekkee dëgg rek moo ñor Jamra man dama ne Jamra perte na cible am waaye doo gis koo xam ne dana dugg ci boîte ba tase fa ndaw ñi di leen soppi doo gis koo xam ne yëngatoom ak dalam yëpp mooy nit ñi jëriñu ci xol bu yaatu ci fit wi ci éloquence ci xam-xam nga ne kooku ngay gaare pour ya fexe jël ko yóbbu ko kaso kaso soppiwut nit waaye as gor boo xam ne sa nawle la li nga jàng la jàng li nga naan la naan yow soo waxee d'accordul mu màndu coow su waxee d'accordul dafa am leneen lu koy faj lu mooy lii su fekkee ne dëgg ngeen di xeex ndax man rek ngeen dégg suma wax te man su ma wax sunna la ba suba duma ko retiré donc beneen leer tontu bi dafay ñëw ci Mame Matar xam ngeen li may waxee binduma kayit xooluma ko fenn te wax ji jub na riime na sa parce que suma xol la jugee soxlawuma bind soxlawuma répétition ma maxtar Gueye danga di mag ma fonk la bëgg la yow soo demee ba toog ci pénc ma ne da ngay defar yàq warul man dama am mbokk dëkk ci dëkk bi waruloo ma taxe ak adressé ma saay-saay du sa cër dontu ne moom laa doon te maa ngi seede ci yàlla ne bés bi yow ma isin yasduru naasu astatan li yura wa taxawe man ragaluma yàlla teg sa jëf ci balance teg suma jëf doomu ëppale mukk billahi lazi la ilaha illa huwa ci wax ju baax ci jëf ju baax ci njëriñ ci jaam ñi ci xol bu sell ak bëgg wàlli wi yow maam Makhtar Gueye kon su ma amee màndute ci yow bay wote cofeel ci yow waruloo toog quelle que la situation ne saay-saay la loolu warut la te kàddu yu ñaawee mag yëkkati ko ci xale bu ko tontoo penc mi ñaaw sa wax jooju beneen yoon bu mu la dalati am na làmmeñ licence naa ko nekkul suma pos mën naa la ko delloo waaye suma orma ci yow ak cofeel mayit ma ko benn ñaareel ba yow yaa tudd Medina bàyyi li Cheikh Ahmed def moom la engagé engagé wul Medina Baye lu tax nga romb këri diine yépp ne Medina bàyyi den ko mere kilifa yi woo neen ma kontaan nañ ci loolu du dëgg Medina bàyyi ñetti kilifa la am xalifa bi jiite njaboot gi wër na ma ne woowut la imam bi jiite jullit ñu julli wóor na ma ne woowut ak Cheikh Mahi yal na yàlla wéral ko te yàggal ko mi dénk kàddu kër gi wowut la kon ñetti kilifa Medina yu gën a foor wowuñ la neel ñenn ci Medina te ñooñu dañu am problème ñooñ ñoo woo kon dugal ci Medina bàyyi dafay doon beneen njuumte boo xam ne bëgguma nga dugg ci benn ñaareel ba yow maam Makhtar nga ne nit ku baax nga dangay xeex dëgg salaam ñasaki mbokkam jàppuma dóoruma ba ma nekk ci diggante dund ak dee di ñaan ndox te defuma waxuma ñu defee ko sa kër maam El Hadj Ibrahima Niass Baye Niass loolu nga toogaat naan d'ailleurs sa dooroon neen ko mel ni ku ci feer loolu bañ nit ki la wala mbon ga ngay wax ne moom ngay xeex de yàq société danga ko ko mujj yéene en tant que jullit du cëru modérateur du cëru defarkat bul fàtte ne quelque que soit alpha yërman na yàlla soriwul ma te jaam laa wax boobu danga ko war a retirer ndaxte gàcce la ci Medina Baye ñu jàpp taalibe bàyyi dóor ko biir dina ci lu dul dëgg xalifa bi am na si kersa toog naag man wax naag man imaam cheikh am na ci kersa toog naag man wax naag man cheikh yi am na ci kersa toog naag man wax naag man yow nga répété waat loolu mel ni ku ci feer dëgg dëgg fooguma ne loolu sa cër la Mame Makhtar beneen ba ca tegu nga ne yéen jamra fi ngeen njëkk a nekk ay cuune ngeen ne imaam cheikh Ahmed Cissé la ñu porte plainte dangeen juum su fekkee imaam la justifié leen ban juma laa nekk imaam bokkul suma tur ngeen toog rek tudde bokk ça veut dire que yéen ki ngeen di sa plainte xamu leen ko yàlla daf leen ko réeral ba xamu leen ko génnee leen turu imaam ci suma tur benn nga ne man damay oote woo ustaas wax jooju du dëgg walaato bu ma toog suñ ma ne ustaas laa ma bañ suñ ma ne sëriñ nga ma nga bañ man bokkuma ci ñu nayef ñuy làqatoo kër sëriñ si dama fonk kër sëriñ si bëgg leen xam seen dayo moo tax bi ma nekkee suma mbir ma ne bokk ma ci benn kër diine image yaa ngi fii vaar day dox ma ne duma ma kenn su ma bàyyi laa gëm jël sumay responsabilité laqatoowuma kër kër sëriñ ci ndax duñ pour commercial duñ pour dundi àdduna waaye pour jàng masala la jëfee ko yóbbu sa xidmatu ñu ñaanal la ak nga jéem leen a roy man dama xam seen valeur moo tax waxuma lu ñaaw ci seen ci ñoom waxuma lu bon ci ñoom kon maa ngi lay wax nga retirer loolu li nga ne man may wax ne oustaz la c'est pas vrai beneen bi mooy yow maam maxtar Gueye pression nit ñi bu la jaral def lu deful wala wax lu waxul c'est pas parce que am nga pression imaam yi mer leen imaam yi mer leen buñ meree lan la leen lislaam wax benn man jullit laa dama indi suma propos ci lislaam na ma ulamaa woo teg ma ci plateau laaj ma ma indi dalil su baaxee ñu wëyal su baaxul ñu ne ma danga dafa bon ma ne leen baal leen ma ndax moom ma diine ji waaye man ma def suma propos ci lislaam teg ko ci xam-xam bu leer ak bëgg jullit ñeeg sàmm seen wér-gu-yaram ak wax njëriñu xutba nga ne den may jëlee ci lislaam jox ma procureur pour mu àtte ma ndax loolu dimbale lislaam la beneen bi maa ngi koy wax président Macky Sall di ko wax ministre de la de l'intérieur ministre de la justice di ko wax procureur ne man Cheikh Ahmed Cissé le 12 janvier man la ñu jàppoon dóor ma vidéo ma tasaare ko ci àddina ma porte plainte ba procureur auto-saisine ba tey dossier bi jàllut maa ngi yaakaar ni Sénégal nekkee réewum loi ba ñu ne tey den may porte plainte ngir li ma wax muy suma avancement wu diine maa ngi yaakaar ne bi ñu ma def vidéo ma tasaare ko partagé suma image te neexuma même gouvernement même nguur dina def dëgg ci man jox ma suma àq ndax Sénégal kenn moomu ko te su fekkee lii ma wax man ci diine dafa am conséquence bugguma ci yërmande bugguma ci sedd bugguma ci masla ndax diine waruñ ko yàq neen ma teg daan ba gën a rëy waaye nag neen ma jox suma dëgg ndax victime laa ci justice bi ñu taxawal muñ naa ko noppi naa ko te nag occasion am na suma ma dossier sa table waaye am na bu ko jiitu woon te moo gën a garaaw bi ndax yaa ngi dégg ci biir vidéo bi mu ne den lay rey ba nga dee sulla te du mujj fan ndax ñas leen sant te suñ kër bàyyi la dama xamul nag ñoom seen ñas dafa supérieur suma ma siise wala déedéet donc lii mooy kàddu yi nga xam ne moom laa bëggoon a leeral képp ku màndu te ragal yàlla bi ma dégloo xam ne dëgg laa wax Cheikh Ahmed moo ko dérangé kooku damay sant yàlla ndax moom ma puus fu mu nekk dine ji du enal nit ki du mere nit ki du nit ki soof na la mais ay texte la ak waxtaan ak déggoo ndax l'islam dafa bëgg la mission donc lii mooy li nga xam ne bëggoon naa ko wax di déglu journaliste yi ñu laaj may question fii ma toll question bu ma arrangé wul dama koy delloo borom duma ko tontu ndaxte ay magim jëmm ay ñuy woote soi-disant sëriñ bu ñu defee seen organisation pour xeex la yow yaay sàmm sa làmmiñ ba bañ dugg te bokk na sàmm sa làmmiñ la arrangé bu ko tontu wasalaamaaleykum wa rahmatullah